maaleykum chers téléspectateurs yéen ñu ñu ñu seetaan ci Leral TV comme su ne fu mu ne nag euh, jamono gi ak euh, duniyaa gi moom moo laaj tey ñuy waxtaanee lii di mbëkk mi waaye tamit tunga teew ñuy nataal ñu ngi fii ak euh, Fall Fall mi nga xamante ne daanaka mi ngi woon ci mbëkk mi xam na bu baax lu mu ci daj donc lu ñuy def rek mooy tàllal ko micro bi xool moom ay kàddum salaamaaleykum. oui maaleykum salaam man maa ngi tudd Serigne Cissé maa dëkk fii nii Yaraax quoi demoon naa si mbëkk mi. waaye dafa fekk ne du nekkul ay dara waa dafa fekk dëkk bi fi mu tolluwaay dëkk bi moo waral loolu noonu quoi parce que man mi di wax ma ak nii ñaari métier laa am benn bi électricien batiment la beneen bi mécanicien la damay xëy garage di xëy di takkale lu ma am li may liggéey fii mën naa toog góorgóorlu mais boo xoolee la moo tax ñun mënuñu toog fii ni góorgóorlu dëkk bi dafa métti mën nga xëy soo ba ngoon da nga am ay rak ay frère du genre ñooñu dañuy yaakaar si yow di nga xëy benn jour dem liggéey

da ngay jàng fii da nga gis ay nit plus 5 10 ans bac plus 4 mais amuñu lu ñu liggéey ko moom moo waral loolu mais mbokk bi du dara ñun gënaluñu ñu gënal parce que jàng nañ ñu si lu ñu xamul xamuñu ko defuñu leneen ñun liggéey daal la ñu xam moo waral sax ñu jël di sacrifier suñu bopp dem si affaire mbëkk mi loolu kese moo ko waral. bon man damaa bëggoon a xam exactement euh, yow euh, lan moo la ci dugal wala da nga koo dégg wala dañ la koo wax wala.

léegi su ko seen papa joxul bu ko joxulee nag léegi day merci loolu quoi jàpp ne sama papa ji bëgguma tekk wala bëgguma dara mais une fois ñu jox la xaalis nga dem ba si biir bu yàlla defee nga yegg alhamdulilah boo yeggee sax di nga woo nit koo xam fii nga ne ko sawaay wuy ma li affaire dof la bul si dugg quoi malgré que nag yàlla defal yow nga ñëwaat man daal damay sant yàlla li taxal ma dugg si ma la ñàkk xam mais su ma xamoon ni loolu laay moo joxe am na man maa ngi quitté fii nii ay presque ay 6 matin ah 6 heures du matin laa quitté dem Saint-Louis parce que man déparé Yaraax man Ndar laa déparé benn dëkk bu ñuy wax Njaw Sir voilà ñun presque ay 75 personnes la ñu woon personnes la ñu nekkoon si gaal bi am naa ay quelques vidéos sax mais bëriwul benn une heure temps une minute 20 secondes la bi ay 55 secondes mu ngi sama télé. Euh, yan métti métti ngeen doon daj ci biir géej nitu guddeeg wala affaire yooyu noonu ñun yàlla dimbala ñu soit yàlla musal nañu si affaire yooyu noonu mais ñun alhamdulilah ñu jàkkonte yenn yooyu noonu jàkkonte ndax da ngaa ndox moo tax nga wóolu woon sa dem wala. man waaw alhamdulilah mën naa ne mën naa ndox par yaraax laa dëkk tattaf gaa ngi nii sama kanam en plus dama si bien protégé jënoon naa zile quoi malgré que tam su ma ba dara xew même bu fekkee dafa def dañu dee dañu nekk ñu ñuy dee ñi nga xam dañuy perte quoi au moins suñu huile de safran dinañu garder quoi ba bato mën a def yàlla bato def dal suñu kaw wala du genre man la man yàqu yi nu Barça dem àgg laa doon demee man dem ay dem Barça wala man moom si kàttanu yàlla deewaguma léegi quoi incha allah moom ay Barça wala Barça moom mooy loolu noonu quoi man dama doon motif solo damay dem yegg wala solo damay ñibbi si waat par capitaine bi sax man bokk naa si ñi nga xamante ne ñoo njëkk wax gaal gi day retourné par man nee ko man j'ai envie de revoir ma maman par dama envie gisaat sama yaay quoi donc ñoo moon stratégie dem pour dee wala dem non dem yegg laa doon gis wala yeggu ma ma ñëwaat sini kër comme ni ko yàlla nga xool sa ginnaaw boo tourné gauche ndox nga gis tourné droite ndox nga gis si kanam ndox nga gis si ginnaaw ndox nga gis yow laa xamoo yow fa la suuf si foyte loolu da ngay si yàlla rek pour man boo demee si géej yow waratoo def ay mauvais truc du genre moom moo nekk si kaw moom kese mooy dogal quoi yàlla moo ñu dimbali amaan dafa tudd woon dañu dee si yoon bi nii ñi fa des tamit du ñekk seen ñàkk jom dara yàlla moo dogaloon ñoom fa la ñu des quoi sant yàlla alhamdulilah ñun wooy ñu ngi si sant ko amuñu benn problème. Euh, am na ñoo si gaañu. non ñun malheureusement ñun ñu dem ñibbisi ñibbisi. non dañoo dem foofu instant boobu noonu yoruñu kaabal pour sel gaal gi pour mu taxaw si jour gàmm gi ñun si la ñu yoon ngelaw dab ngelaw si la ñu dabee ngelaw bu métti après ñu wax dañuy ñibbisi kon moo loolu instant gaal mënoo yow nekk biir xam xamoo fi nga nekk fan yoroo câble bi nga xamante mooy sécurité gaal moo koy téye nga bëgg a taxaw ni da ngay si ngelaw bi nga xam a nga retourner mooy gën a yomb nga franchir lii ba problème loolu moo waroon tamit ñu wax nañ nañ dellu si mbaa amul ñu bañ ba ba ba bëgg di di di jote ak ñu ngi doon am na ñi nga xamante ñu ngi doon bañ rek mais bañ bi yëpp yow bañ bi day mel ni sax sa ruux bi moo tax bu jëm sa génn gi kon gis benn affaire bi nga xam ne mu leer na lii nii boo ko forcé dee mën si fekk kon donc pour man boo ko risqué après foofu xaru doon quoi nekkatul ay lii nii boobu da xar da euh, yi nga jël def ko ci gaal gi tey bu fekkoon euh, jotaat nga ci ban ba ban ban projet ngay ngay ngay entamé wala da delluwaat non instant bii nii nii 300000 su ma si jotoon nii nii nii damay dugal sama poulailler rek parce que commencé naa benn poulailler maa ngi benn xarit fii mu ngi feeraay mais su ma amoon ku ma dimbali nii nii nii nii nii man 300000 sax bëri na ba ma amoon benn 150000 après mooy loolu noonu ma yegale sama projet ginaar yi parce que man mooy loolu noonu liggéey rek laa xam ne liggéey rek barki Seexu Tijaan ku ma moom liggéey rek gi moom boo ko déggatee fu mu ne nii moom la koy non gaal moom non du man moom bu ma sama rakk laa la nga xamante ne maa ngi ñoom ñoo bokk famille su ma maa ñoom bu ñu jaral na ma damay xeex ak ñoom non duñ jàmm parce duñ dugg si parce xam nga bu dee yoon la quoi tamit waxante dëgg tamit quoi yow boo génnee di dem sax leer na fi nga jëm yow ndox moo lay wër tu vas faire foofu di fa def 5 wala 6 jours minimum wala 7 jours donc yow di nga pensé que ni man ah fii laa si ndox kese li ma jëm est ce que yow fi nga jëm xamoo quoi si ay risque ngay dox malgré bu dul ki lay sax dafa xam foofu mais si ay risque ngay dox risque mooy lan tempête mën na la fekk foofu bant ak yenn affaire yi vent violent yooyu mënul mooy loolu noonu quoi moom moo tax. ndax am na yi ngeen daje woon ay bateau wala ay gaal yeneen yoo xam ne dañ dem ñoom Espagne. suñu quatrième jour bi ñu tolloo si zone ba ñu dem quoi ñoom bu fekkee ñu dem bi jour bi ñu daal ndar jour bi ñu si guddi gi noonu di wàcc di génn man gis naa gaal gi nga xam ne na pour génnaat pour dem Espagne mm-hmm. ndax fu ne ni ban message ngay lancé jeunes yi nekk non man selon ñi may déglu quoi man waxuma ak de man selon ñi may déglu ñi nga xamante ne man lañ sama wax quoi man affaire moom ku ñu wax déggoo demal quoi parce que man loolu la yàgg naa nit sama dem bi nii yaay laa ko bi ma ko dese ay 3 jours dem laa ko wax sama nijaay bi ma dëkkal nii waxuma ko dara dama bàyyi ba fajar gi may dem laa ne ah ma doon préparé tey lañ ma woo ni ma naa ñëw moom moo tax ma dem si mais c'est du yëfu nit quoi pour man du fit du góor du affaire xam affaire la la pour man inconscient la quoi pour le fait que nga dem du job parce que loo am fit di nga taxaw nga ne ëpp su ma yëgoon lal bi ma bàyyi fee ne wala matelas bi ma bàyyi fee nooy gi mu taxaw nga jeg saay tëdd mais bu dee si ndox amul loolu noonu cinq imagine leen cinq jours ku toog lekkoo naanoo defoo ma la ko waroon mooy bi ma aaraat parce que ma ngi nii ba tey dama lay wax maa ngi ay médicament fii une semaine ngi sama biir day daaw mooy loolu noonu yooyu yëpp gaal yi ma ko teg bu dul woon gaal yi amaana maa ngi sant yàlla damay gis liggéey mënu ma ko liggéey parce que damaa feebar je suis malade mooy loolu noonu dèjà waaw euh, ñu gis ne wér gu yaram amu ci jàmm itam amu ci bi léegi bi nga ñëwaatee nan nga doon dundee fii non bi ma ñaare comme nii nii rek damay génn bu ma amee lu may def ma dem defi ko soo ma lu may def maa ngi sama néeg toog waa kër gi ñoom xam nañ loolu man moom du ma génn su ma génn sori lu ma génn génn lu mu sori sori du def ñaari waxtu wala ñetti waxtu damay génn léeg-léeg ma ñëwaat toog si kër bu lu néeg béy ne du ma ko sax tëj ñi laa koy bàyyi damay génn du ma sori su ma amee lu may liggéey nag dem liggéey su ma amee lu may liggéey maa ngi fii toog daw ma fenn. merci beaucoup. ok jaajëf grand.